Sidi Lamine Walfadjri. Monsieur le Président, l'un des traits caractères qui saute aux yeux des observateurs euh, durant les élections est la démobilisation du peuple sénégalais. Comment comptez-vous réaliser le contrat de confiance euh, que vous avez développé euh, durant la, votre campagne électorale euh, ou trouver les moyens pour le Monsieur le Président. Merci. Euh, nous n'avons pas porté, je vous remercie Monsieur Nias de votre question, nous n'avons pas porté le même regard pendant la campagne électorale sur le peuple sénégalais. Moi, partout où je suis passé pendant cette campagne, je n'ai pas remarqué de démobilisation, je n'ai remarqué que mobilisation et enthousiasme. Euh, cela dit, il y a dans le peuple des angoisses, des problèmes, des préoccupations, des aspirations. Et nous sommes élus pour répondre à cet ensemble de problèmes. Bien sûr, le programme que j'ai développé pendant la campagne électorale demandera des moyens Ces moyens, comme tout État sous-développé, j'essaierai de les trouver sur le plan national, également dans l'aide au développement. Donc, je renouerai les contacts avec tous les bailleurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux, pour obtenir les moyens complémentaires afin de réaliser les projets contenus dans le programme que j'ai proposé au peuple sénégalais et que le peuple sénégalais a bien voulu accepter en me faisant confiance et en m'élisant pour un troisième mandat. ma koy wax fii nii laa ñëwoon seen kanam le 23 juin bi ma déggee ne ña ngay attaqué ci Walf attaque nag amutoon. bi yoon nag ñëw nañ yegsi nañ waaye nag askanu Sénégal itam ñëw na mi ci bunt bi askanu Sénégal ñëw nañ taxaw en bouclier li taxaw tey ci buntu Walfadjri yaakaar naa ne bu bu leen day ñëwee da ngeen dégg massacre bu mësta am ci Afrique bu mësta am ci àddina ndax ñépp a ngi tëdd ne na bu leen day jaar ci seen kaw ñëpp nga joxe seen bakkan ñëpp a wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah dugal ko dugal ko waaw président euh, Wade euh, président Wade mi ngi woote Idrissa Seck itam mi ngi woote kon ku ku ci njëkk ñëw rek jox ñu ko mhm. yéen ñëpp fu nit nekk ci Sénégal ñaan naa la mhm. nga yëkkati baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulillah xam leen ne loolu rek a koy sottal laa ilaha illallah muhammadu rasulillah fu nit nekk rek yëkkati ko puisque fii ñu toll bu ngeen gisee li tëdd ci kanam yi ci mbedd yi ko wër yépp léegi ñoom ñëpp nee nañ na blindé yi ñëw jaar ci seen kaw ndax dañoo buggu ñoom ñoom itam ñu bokk ci xare bi bokk ci badar bu fekkee Macky Sall fii la bëgg a mujjee réew mi bu fekkee lii la mu bugg a mujjee ak li mu fi fekkoon ne yegg si le 23 juin man la woon ak moom ak Moustapha Niass ak Mansour Sy Djamil ak Penda Diallo ak tant Penda Mbow ak tant de personnes te fekk veille bi fii la woon bi ma nekkee assemblée ñu wax ma ko ni ma déparé woon nii nekkoon ci dëkk bi noonu laa déparé ñëw fekk fi PEF Pierre Edouard ñu ñëw noonu laa ñëwaatee tey ne bu fekkee ne am na kenn ku ñu war a jàpp na ñëw nekk man bu amee kenn ku ñu war a rey na ñëw nekk man lii ñii ñëpp nekk nekk fii indiwuma leen fi duñ samay taalibe duñ samay doom duñ samay jabar duñ samay leneen dafa luñ gëm rek dañoo gëm profession dañoo gëm un travail boo xam ne da nga ciy déglu les deux euh, donc l'autre son de cloche il font un travail boo dégloo Moustapha Diop léegi nga xam ne moom ak Yakham Mbaye ñoo bokkoon nekk di liggéey ñoo bokkoon nekk mu wax ko wax ji nga xam ne xarit moo ko wax xaritam boo xam ne ñoo bokkoon idéal mu gis ne ma ngay wàcc idéal ba soo déggee may wax ak Babacar Touré c'est parce que Babacar Touré keroot ci sama discours euh, inauguration moom moo ma joxoon baat boobu citation boobu président américain bi doon wax ne il préfère un état boo xam ne euh, il préfère un pays boo xam ne n'a pas d'état mais qui a une presse plutôt qu'un pays où il y a un état où il pas de presse Babacar Touré ma ko waxoon gannaaw bu mu ñëw bu ma exiger ne na ñëw wax ubbi waxtaan nuñ fi doon def la presse avait un seul combat un combat pour la démocratie moom laa waxoon démb lii ñuy def am na lu bëri loo xam ne euh, Sud moo ko fi njëkk a def ci rajo ubbil ñu bunt boobu ñu ànd ci ak moom yeneen rajo yi itam ak yeneen télé yi li nekkoon seen doole mooy bi ñu ñëwee bi ñu jógee fii bi ñu demee dañoo continuer lañ doon def bu fekkee nag dañoo defee ne loolu daf war a jeex am na loolu daf war a paase dañoo war a mun a ngalaab ñeneen mais c'est pas vrai c'est pas possible munta nekk Euh, bi nga xamee ne ma jëmbal jàpp jàppoon nañ ko maa ci jiitoon bañ ko buggee politiser nag ci la reculer Babacar Touré il se il se souvient que keroog ba mu ñëwee ne la programme programmé woon pour mercredi mooy un journée sans sans sans rajo nañ ko def le lundi pour fair la pression sur l'État loolu moo taxoon oui loolu moo taxoon ba nga xam ne. ma ne kon nag man génn naa ci bu ñu ko buggee politiser mais tant que c'est un travail professionnel tant que ça défend la profession je suis prêt à y kon nag tey ñu koy waxaat Ndeye Fatou maa ngi lay ndokkeel euh, Georges maa ngi leen di ndokkeel ngeen nekk ci xare bi ba li leen ci fekk fekk leen lii moo ci daan fekk mag ñi yéen la fi bal yi fekk yéen yéen a gis xare bi te dawu leen soit retiendra ne yéen ak technicien ñi fi nekk yéen la fi fekk ci bisub tey bii kon nag maa ngi leen di félicité maa ngi leen di ndokkeel ci lim leen fi fekk maa ngi ndokkeel mbooleem sénégalais yi nga xam ne ñi nga taxaw ci bunt bi fees koñ ba koñ ñoom ñëpp circulation bi yëpp arrêté nañ ko ñu ngi jógee ci quartier yëpp di bëpp di ñëw di yegg si dañu am nag résultat yi moo tax ñu wax ko am nañu li nga xam ne mooy le les bureaux test yi nga xam ne luñ la génnee loolu la réew mi di génne bureau test yooyu nag non bi daf cee gagné massivement looloo moo tax ñu tiit xam ne loolu c'est la fin waaye bu fekkee nii lañ koy jeexalee Ablaye Wade jeexalewu ko nii euh, nu mu tuddati euh, euh, Abdou Diouf jeexalewu ko nii Senghor jeexalewu ko nii makki Ka bu fe ma ma bu fekkee nii nga ko bëgg a jeexalee doo doo ko fekkee mukk man maa la koy wax. bul ko jeexalee nii la démocratie Sénégal ko moom à l'époque coloniale y avait une démocratie. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. waaw. à l'époque col. Mm-hmm. coloniale. à coloniale y un multipartisme. à coloniale. dégg amoon na ay amoon na presse. kon nag li nga jàpp tey ne loolu mooy defar. moom moo lay defar wala moo lay yëkkati da nga juum c'est pas ça Macky recule li nga bëgg a aw du loolu boo jeexalee rafet ci rafet ci xamal ne la fi indi woon loolu moo fi nekk ba tey xamal ni la poussé woon ba nga yegg si au pouvoir loolu moo fi nekk ba tey mooy un peuple souverain un peuple waaw ah? léegi dañuy jël di image yi en direct pour wan askan wi ñi nga xam ne ñoo ñëw pour jàppale wal kon ñu ngi leen di wan image yi moom ngeen di gis porte bi mm. nit ñaa ngi ñëw Euh, gars yi dañ leen ko génne léegi. suñu euh, gars yu xereñ yi ngeen gis naka la nit ñi di ñëwee. Mhm. ñoo lii ci début bi la bi ñu commencé ñëw mooy premier élément yi ñu jëloon. Mhm. waaye dépassé na lii largement li ngeen di gis noonu ci suñ gannaaw. dépassé nañ ko nit ñaa ngi ñëw de partout. kon Ndeye Fatou gannaaw bu ma leen jokkale. je pense que sax bon ça c'est une mauvaise image je en train de faire. Mhm. mais li moo yàq élection. danaa la wax tey benn affaire boo xam ne waxoon nañ ko. vérifié naa ko jàpp naa ne looloo jox fit Macky Sall mooy le côté mystique gis nga dafay yëg ci nguur gis nga nguur nag ñi ko fi ñàkk ñëpp suñ yëgee ci nguur dootoo gëm peuple bi la ah, bi la kii woon dañ lay ne diwoo ko gisoon diwoo ko gawaxoon diwoo ci aay côté mystique nag daf cee yegg ci ñu ne ko boo yeggee Israël ca raben ya bañ defal la foofa seen xërëm yooyu bu boobaa boo demee kenn dootu la mënal dara gis nga mbaxana mu ñuul mële nga gis ministre des affaires xam nga mooy lan xam nga fleur yi lay posé ah. loolu mooy ku la laal dee ah bii mooy ku la laal dee kaay ma ubbil la léegi ancien testament woon la ko mm-hmm. ah. suñ génnee léegi ma ubbil la ancien testament woon la ko Talmud bii mooy ku la laal dee loolu lañ koy defee beneen bi mooy bi mu sol mbaxana mu weex mi su ñu ko mu nee woon léegi bii dañ ko ne kii moo gën a foor kaaba gi su demee ba fii mur de lamentation bi bu fa taxawee sol mbaxana mu weex mi su fa ñaanee su waxee ne na nga toog ci nguur da nga toog ci nguur lii c'est mystique xam nga ni lii c'est pas diplomatique xam nga lii du mission diplomatique lii c'est mystique en tout cas haute trahison lii lii c'est c'est pas diplomatique léegi nag gën bi mu gëm le côté mystique moo tax ñu ne ko defal lu la neex ku la laal dee te loo yootu am ko te foofu nga dem moo gën a for gi man ak yàlla daf ma dimbali maa ngi sant yàlla su fekkoon lii avisé wu ko woon man ak moom ak euh, ak bu Soumaré ci avion li ko noon danaa wax ne dinaa ci amanteeg sama borom waaye dañoo ànd président Wade moom moo demandé puisque président Wade dafa soxloon affaire yu pétrole. Mm. ñu toog ci pale ba di ci discuter. mu ne ma dama bëggoon nga jàppale ànd ak yow ak Aziz Sow ngeen dem Algérie ma ne ko d'accord Macky Sall ne ma déedéet man ngay àndal ndax dégg naa ni ngay efficace ak ni nga xamee gars yi léegi nag man damaa bëgg a réussir sama mission ma ne ko des na ci yéen man facilitateur rek laa. bokkuma ci appareil bi mën na ma li ci des maa koy dox bi may dem ma jógee Sénégal man ak Hadjibou Soumaré ñu fekk Macky sàll Paris mu ñëw ñu jël avion bi Air France war a dem Téhéran biñ duggee maa ngi téye sama kaamil mi ngi téye la franc-maçonnerie le nul bi mu ko téyee ma ne ko PM baal li bokkoo ci mu ne ma non mais c'est quoi ma ne ko c'est être juif sans lettre puisque pour être juif c'est biologique sans l'être nag il faut être maçonnique la def ci ay xiram ak ci ay ñaan ak lañ gëm ak seen chef yeeg seen yéen ñuy séddale yépp ma ne ko nag li tax mu cosaanu ba ñun ñu mun cee xam dara mooy dañ ko évoqué woon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi yonent bi dafa toog daal Suleymaan yonent bi yàlla ba ñu ne yée kii gannaaw xam na Souleymane kon xam na li mun a yéegal nit ak li ko mun a jox di chef ak li ko mun a yéegal Salomon Souleymane moo munoon loolu Salomon alquran ne wa maa kafara Souleymane walakin ash-shayatina kafaru yuallimuna an-naasa sixra mu ne Souleymane mos a dugg ci mbirum xiram mos côté mystique yooyu ngeen di wax mos a dugg ci jabar yooyu ngeen wax ñu ko wëroon nag mm-hmm. entourage mu amoon ay démon yoo xam ne ñoo amoon pratique boobu ma ne ko moo tax soo ci suñ lay xëcc di la dugal ci maçonnerie wala ñu lay dugal ci leneen dañ lay gëmloo ne am na luñ mun mun nañ la ceeb war nag loo xam ne mun na laa jaaxal waaye du dara ci ko xam ne yàlla mooy joxe mm. yàlla nag danay jox nit lum foogutoon la vérité fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen kan xam leen ne benn patron rek la am mooy le peuple sénégalais seen patron tuddul Sidy mi Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paye mooy ki leen di jëmale kanam peuple boobu nag munu leen koo nax gënu leen ko muus dàqu leen ko jàng ëpp leen ko information bu ngeen toppee ci yoon wi nga xam ne mooy la ligne des masses vous allez le trouver avec vous waxtu bu ngeen wàccee la ligne des bi ci njëkk mooy oustaz Sidi Lamine Niass dinaa ko rendre hommage parce que dafa am rôle bu ama am solo boo xam ne joué na ko ci démocratie sénégalaise joué na ko ci bañ nooteel ak bañ pouvoiru xaalis dem ba noot lépp luy média ci senegal dinaa ko rendre hommage parce que dix jours ci gannaaw muy mercredi bële mu may woo ñu jokkoo ci whatsapp bi may woo mi ngi ma fekk aéroport Bruxelles ci cadre tournée bi ñu fa doon def waroon jóge foofu dem Suisse mu ne ma dama la woo pour ñu waxtaan parce que fii ñaari weer élection yi commencé campagne bi commencé te rôle bi ma daan joué fii Sénégal ci démocratie ak ci pluralité médiatique ak bañ ñu fexe. ba jël alalu askan wi comp ci jox ci ñenn ci ñi nga xam ne dañoo yor tey ay média ba média yi war a féete ñoom ñépp benn boor moo tax ma la doon woo pour wax la ni rôle bi moo daan joué mooy fexe ba couvrir de manière équidistante amul pouvoir amul opposition ba kenn ku nekk ci yenn am voix au chapitre rôle boobu laa bëgg a waat te bu fas yéene naa événement bu ngeen di def manifestation bu ngeen di def ma yebal fa équipe buy ñëw tourné ko jàllale ko ba Sénégal yëpp gis ko. ma rafetlu ko ma rafetlu ko ne ko bu soobee yàlla le 3 lay ñibbisi si le 4 incha allah bu ma noppaloo ba ngoon dinaa la seet si joxaale la benn exemplaire ci suñu livre bi ñu xool nañuy waxtaanee ci loolu ma ñibbisi le trois le ñu yeema 10 heures yéegal ma li yàlla def kon jaadu nañu rendre ko hommage te di ñaan yàlla fee mu jëm gënal ko fii mu jóge yal na yàlla yaatal bàmmeelam oyofal suuf ci kawam ñaareel bi mooy suñu frère patriote Birame Souleye Diop. lan yàlla boole jéggal di jaale bokki jullit yépp sëriñ Sidi Lamine Niass ni nga xam ne mbokkum jullit la naam ñépp a ko xam waaye mbokkum daara la ci ak dundam wone na ni dongob daara li ñu koy tuumal lépp bari na waaye mënu si koo tuumaal dongob daara ku ñàkk jom la dongob daara ku mën a muñ la loolu kenn mënu ko ko tuumaal moom ne munta muñ wala daa ñàkk jom ndax ci ñi doon wax gannaaw bu mu fi bàyyi ko kenn ca ñoom di magam ji mbokkal lépp wax na ne bi bàyyam di génn àdduna juróom-ñetti at la am dundaat ginnaaw bi juróom benn fukki at yoo xam ne lépp ay coono la bokk yi nag loolu jàngat mu rëy mi ngi ci ci ne yàlla rek moo mën a taxaw yàlla rek moo mën a dénk yàlla na ko yàlla yërëm te teg loxo ci njabootam